daal di wax lu leer te ñi nga xam ne nag ñooy coordination des associations de presse ñoom nag nee nañu tas ko do xabaar bi am na sañ-sañ def ay investigation am ay xibaaram daal di ñi nga xam ne ñuy askan wi te nag loxo Pape Alé Niang mi nga xam ne daal nañu koy jàpp te la koy tuumaal mooy daal di xibaar yoo xam ne dafa aju ci wàllum secret défense ñi nga xam ne ñooy Amnesty International section Sénégal ñoom Seydi Gassama ñoom tim ñaawlu noppali nee na jamono ji pression bi daat nay tara ndax ñi nga xam ne ñooy société civile bi opposition bi ak ñi nga xam ne ñooy taskatu xabaar yi ñoom ñëpp jamono ji ñoo jokko di tubo yul Pape Alé Niang ngir nag ñu daal koy bàyyee yéen kaay gi de la Témoin ñu xëy fekk fa Mamadou Omar Ndiaye moom nag nee lii nga xam ne procureur bi wax na ko daal génne ab communiqué naan dañuy songu xawma force de l'ordre yi xawma la nag la nag la nag waaye nag a noppiloo ab journaliste boo xam ne bu courageux ay tamit bëgg a noppiloo journaliste boo xam ne bu rejeté la ba tey ci biir journal bi moom Mamadou Oumar Ndiaye daan wax ne jàpp gi nga xam ne jàpp nañ ko Pape Alé Niang maanaam non seulement tegewul ci yoon waaye nag anam bi nga xam ne moom lañ ko jàppee loolee tamit rafetul jaadu wala mel ni koo xam ne yow da ngaa jàpp ab délinquant ba ci journal bi révélation yi nga xam ne Pape Alé Niang nag ma ngi koy def maanaam di andi ay firnde di andi ay preuve ay document yoo xam ne maanaam yu leer nañ la loolee ci boobu moom la nguurug Sénégal gii mun ta wanaasu ndax bëri na nag ay scandale jëm ci xaalisu askan wi ak ay complot yoo xam ne nguur gi def nañ ko te complot yooyu ak njuuj njaaj yooyu yëpp maanaam journaliste bii di Pape Alé Niang da koy dénoncé ba pare nag di andi ay firnde yu leer nañ ñi yéen kaay gi di critique xëy di ñu xibaar naan ñu presse bi mangi ci danger yéen kaay gi di évidence ñu xëy fekk fa Pape Djibril Fall nee na lu jëm ci wàllum liberté d'expression loolee amul kenn koo xam ne war naa nekk ci réew di ko jéem a négocier mu njaay siise nee na lu jëm ci wàllum délit de presse amul benn tas ko xabaar boo xam ne war nañ la see téye te wax ji nag mooy Macky Sall ci boppam ci atum 2015 dafa waxoon ne nag man ci sama yi du am benn journaliste boo xam ne danañu la jël di la dugal ci kasu bi ci lu jëm ci wàllum délit de presse ana Macky Sall moomee yéene kaay gi de la témoin bàyyi mbir moomee wax ci lu jëm ci wàllum wàññi gi nga xam ne Macky Sall bëgg na ko en tout cas ñenn ci consommateurs yi ñoom nag nee nañu lii nga xam ne moom la ñu wàññi maanaam daal mënoon nañ koo yokku daal maanaam dafa néew daal wàññi gi mënoon na ñoo gën a wàññi mënoon na ñoo gën a wàññee loole la consommateurs yi wax waaye nag ñi nga xam ne ñooy économiste yi nee nañu bu ngeen xëyee dégg ñu ne leen Sénégal bor bi gën naa jégg dayoo leen bett ndax nag économiste yi bii di may sa baabu nee na senegal bu amul xaalis boo xam ne dina ci def ay subvention xanaa kay dem lebati ma ne la onze mesures yi nga xam ne état bu Sénégal jël na maanaam état bi nar naa lebati ma ne la état bu Sénégal Macky Sall nar naa lebati ci turu askan wi ba maara day taale yéen kay gi du l'observateur nee na bor bi nga xam ne nag Sénégal amee na ko ma ne la bor bi bëri na de Sénégal jamono ji ma ngi ci zone rouge fi nga xam ne moom la mois wax ne bu ko kenn weesu ci lu jëm ci wàllum leb ma ne la gis nga Sénégal weesu na ko buy yàgg yàgg yàgg ma ne la lu toll ci douze mille milliards yoo xam ne yegg na moom la Sénégal lépp loole nag mën nañu koo xayma ci 75 pour cent du PIB yéene kaay gi de la turbine xëy ñu xibaar naan ñu scandale am na ci lu jëm ci wàllum faux billets nee ma trafic faux billets sa diwaanu Thiès ministre Mbaye Ndiaye mi nga xam ne bokk na ci membre fondateur yu APR doomam moom ministre Mbaye Ndiaye benn doomam boo xam ne bokk na ci trafic faux billets ndax nag moom moomee di doomu Mbaye Ndiaye bi ak lu toll ci juróom benn ci ay complice am ñoo xam ne ñoom la lëngooloo na la ñu teg loxo ñu lu toll ci benn milliard ci ay faux billets yéene kaay ñu scandale am na dafa am benn notaire ak benn avocat ak benn fiscaliste ñoom la ñu joxar bi baaraamu tuuma ne dañoo dëbbuli njaa ndax benn guinéen lu toll ci six cent soixante-douze millions waaye procureur jël na enquête bi dénk na ko waa section de recherche yéen kaay gi di réew mi ko di jeex xëy du ñu xibaar naan ñu étudiant Fallou Sène mi nga xam ne moom la ñu reyoon ci université Gaston Berger ay waajuram jóg nañu yëkkati nañu ay kàddo ndax nag ñoom nee nañu étudiant Fallou Sène mi nga xam ne dañu ko reyoon ci université Gaston Berger boobe ba léegi nii ma ne la ñoom nee nañu dossier bi demul jëng dikkul mbay laara te nag état bu Sénégal moo leen digoo na leen mbir mi danañu ko leeral waaye nag ba léegi furaasa li xëdd na waajuru fàllu seen ak njaboot gi ñoom nag nee nañu jamono ji am nañu lu leen metti loola ndax nag ñoom nee nañu bu ñu sañoon daal seen doom jooje danañu xam kan moo ko rey yéene kaay gii di Les Échos ñu xëy fekk fay ma Madior Fall nee na 2016 bi ñuy def ay réforme nee ma rek référendum ba maanaam Macky Sall ci boppam dafa dugaloon nag ay disposition transitoire maanaam ci biir référendum bi Macky Sall dugg dogaloon na ci loo xam ne maanaam mandaam bu njëkk bi daf ciy bokk mandat bu septembre bi daf ciy bokk waaye nag ñi nga xam ne ñuy waa conseil constitutionnel la ñoo dindi disposition boo boobee nga xam ne Macky Sall moo ko su dugaloon bu ñu sukkandikoo ci Ismaïla Madior Fall nee na nag loolee moo tax mandat Macky Sall bu njëkk ba bokku ci ndax nag na nga xam ne moom la ko Macky Sall bindee woon bu ko conseil constitutionnel bàyyee woon noone mandat sept ans bi daf ciy bokk waaye nag comme conseil ñoom ñoo ko dindi woon la xam journal bii di Vox Populi ñu xëy fekk fa Moussa Tine nee na nag nguurug Macky Sall gii ci provocation la ñu nekk waaye nag bu ñu leen fekk seegun ci provocation bi ndax ñoom xeex la ñu bëgg danaa xeex bi jotagul yéen a kaay gi di sunu làmba xëy di ñu xibaar naan ñu Papa Sow moom nag nee na jamono jii daal dafay dem retraite maanaam dafay bay bëree nee na nag dogal bii avant muy bëree ak Siteu la ko jëloona yéen kaay gi nag nee na face à bu njëkk bi war a dox diggante Gris ak Ama tey jii la société nationale d'électricité bu Sénégal Sénélec